ñu ne aussi dañuy def benn motion de censure naka ngay jàngate yenn position yooyu euh, ci déclaration de politique générale bi. ma jàmbal moom ndax mën naa koo ñaan mu bàyyi jàmb ji wala mënuma ko. day jàmb ndax journaliste la faaw muy jàmb. waaye moom li muy jàmb neexul. tem tem tem temiwul mais affaire général Kandé bi xam naa daan ci ñëw mais gis ñu benn journal ci ñooñu. di ko bind ah, ay tur man ba ma xëyee tey yàlla xam na ma mama yow balaa maa mu rosu ñoom laa njëkk leen xool te gisoo ko moom bëgg xool mami man kat ñi dañ maa njuy gisoo dara moo tax sama revue bi tey noonu la ndax dañ maa njuy damaa defoon na dinañ bind ci kii bi loolu man de man daal muy xëy ñuy bind ay leneen di wax ay yeneen kaa waxuñu ci kànde ñoo yooyu nañ ci wax xool Euh, mais moom ma jambal li muy jàmb neexul bu dee mu jàmb te tamit li muy jàmb neexul non li muy jàmb neexul li muy tungu ne baaxul mm-hmm. Mm-hmm. moom nanu dimbali ngir yàlla ak yonent bi ma jambal mun noo dimbali voilà ma jambal nanu dimbali parce que en fait mais itam journaliste la am na oui mais quand bien sûr qu'ils le disent de toute façon kenn mënu koo tere wax mm-hmm. moom koy leen nay mën a am ou nga bañ koo déglu wala nga bañ koo liir mhm. boo bëggee noppal parce que quand même il y a de ces assertions c'est-à-dire loolu c'est des avis et des opinions personnelles mhm. moom avis opinion personnelle la wax loolu du actualité du information de parce que ci ba moom fan la sukkandiku pour war a mën a wax ne Ousmane Sonko euh, dañuy créer Covid mhm. pour mu bañ a def déclaration de politique générale Madiambal il est sérieux mais lan mooy déclaration de politique générale déclaration de politique acte bu simple la boo xamante ne ce n'est rien d'autre que de montrer la politique de l'État devant l'Assemblée nationale <laughs> loolu boobu exercice lu ci nit di daw ak lu ci nit di wiiri njaabu Ousmane Sonko biir Assemblée nationale jaruta yàkkamti <laughs> man kay li may xalaat mooy ñam ñamuy fekki biir assemblée nationale ndax am na nanu xel bi ak muus mi pour mën koo déglu <laughs> baskan wi war cee mën a jëlee njëriñ ndax saa mu ngi wax sànq mais assemblée nationale la fa nekk récréation la de ñoom pour ñoom ay xale lañ de ñoom dañu yaakaar ñoom ñu ngi foofu ba tey de pendant que les gens ont pris cette question de la législature de la récréation mais cette fin de récréation mais parce que bu fekkoon signé woon soufflé woon nañu ko mhm. wala sifflé nañu ko ci période bi ñu ko yaakaar du ñu comporté woon nii comme des bombes man am na ci ay députés yoo xam ne naw ma leen de mhm. barki Serigne Bamba maa leen gën a nekk représentant du peuple ah bien sûr waaw tamit mhm. barki Serigne Bamba liggéeyuñu dara assemblée xaste ak nekkal fa benn nit seen leader mm-hmm. politique muy Macky Sall mm-hmm. boobu assemblée nationale boo leen tegalee ay question yu ñeen xam-xam sax ak doxalinu réew yàlla nañ ko xam à part Guy Marius Sagna mm-hmm. qui est vraiment le best the best of the best des députés de ce pays qui pose au moins des questions importantes ak ñenn ci ñoom ci ay jàmbaari jigéen ñoo xam ne ña nga fa am nañu culture générale ah. mm. comme Ndeye Yacine Gouda dinañu gëstu oui présidente de la kii nekk euh, PUR dimbali ma. waaye kii. Euh, waaye député bi nekk PUR waaye waaye man fàtte naa tur bi ñoom ak ñeneen ak ñeneen ay xale yu ndaw. yoo xam ne mm-hmm. ñu gëstu et puis ñitte askan wi moo leen soxal. en fait mm-hmm. député assemblée nationale dañoo fàtte seen rôle. te mm-hmm. loolu dafa yàgg. ci temps Wade ña fa nekkoon Pod et Marichou lañ doon seetaan ak nelaw <laughs> ñii ñëw moom di jaay indiscipline boo xam ne mm-hmm. amul fu mu yam mm-hmm. ba pare bëgg toog ba léegi di lijjanti ay dossiers yoo xam ne ñoom bi ñu fi nekkee 12 ans. mënoon nañ ko régler réglé wuñu ko. Mm-hmm. ñu toog ba léegi ñuy wax waxu góor ak jigéen ñi. déclaration de politique général c'est un exercice simple. il n'y a pas à fouetter un chat. doom may foofu ma noos si. da nga bëgg ñàmbaas ci député waaw ci député boobu xam nga damaa bokk ci ñi nga xam ne. Mm-hmm. nit ñi dañoo yaakaar sax man damaa bokk ci liste bi. Mm-hmm. man dama dem Touba xam nga fii la waxal Macky Sall. jiiñ ko la mu koy jiiñ ba Macky tëj ko ci kaso bi. bi may yegg. Mm-hmm. loolu mu wax moom taxawul Seneweb bu yàggutoo Njaay ne loolu ñu doon kaas. maanaam affaire politique la woon ànd saa mujj ko yi dañu jëloon xeex bi ñoom. pour def ko ci mais mi ngi woon ci loi bi. Seneweb la ko waxee. Ah, mu ngi tooñ waa ànd saa waaw tooñ te man loolu laa bokk. ànd topp ci ginnaawam. Mhm. ñu bokkoon yóbbu woon loi bi waa bennoo gii daal di ne duñ ko laal. Aline Souare moo ko yóbbu woon dans un premier temps bokk ci bennoo mhm. Abdoulaye Wilane bokkoon na ci comme ay waa bennoo mais ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ay dëmbooj ak yooyu mhm. bi ñu demee ba mbir mi ñoom jurul dara bi quatorzième législature bi ñëwee ñu yóbbu ko ñoom waa Yewwi te loolu la ñu campagne man de bokk na ci waa Touba bi ñuy yegsi da nga doon gis population bi toog ñu jox seen benn waaye centrale bi si Abdou Bara Dolly ngi noonu diwa ngi noonu Abdou Mbacke Ndaw a ngi noonu ma ne leen mais ñoom li ñu am muy l'intercoalition mm. nga xam ne ñi ko teg sax da leen a bett waxantuma laa kim dal ci kawam muy mag Macky ñun bu ñu mënta wax ci loolu yee ci population bi mm. ak vote bi comment nan la ñuy voté soo jëlee bulletin wu yeewi euh, wallu nga war a dugal wala yooyu suñ ci mënta wax wala wax ci affaire ngóor jigéen yi ànd sa mujj ko dugal mais kon ñun jaratul ñuy dem. Mm. li am comme atout après ci lañu boobu dañ doon privé dama leen doon privé comme ñëpp biñ paree ñu jël loolu mais dañuy gis ne population bi dañuy gën a ñëw di teg comme loolu lañ campagne mm. mais moom mu toogal boppam yàggutoo njaay lu yàggut laa wax wax ne maanaam man dama doon tappale moom baara dolli loolu la wax de maanaam dafa ne ñoom dañ doon tappale xamoon nañ ne loolu mu ngi ci loi bi woon mais dañ ko bëggoon a politique affaire politique la muy lu xam ne du dëgg te lu dul dëgg fenn la tudd du leneen moo mm. xam moom wax ko wala keneen wax ko dafa fenal end sàmm jikko yi en tout cas fenalaale même député coalition bi mu nekkoon parce que ñun bi ñu koy wax dañ ko gëmoon Barthélémy Dias moo ñëwee fekk ko fii Ndakaaru loolu la ñu mais léegi xam ne ñii fi nekk xam nga ñun ñu ay góor jigéen di xalaata naa ne ñi xam nañ ko xam nga ñan la mooy ñu mënut seen bopp mm-hmm. mooy ñoo xam ne souveraineté ñoru leen mm-hmm. mais yow xam nañu ne yàgg kay bawul dara mm-hmm. majorité ensemble du mu ngi fi député yi ñoo koy dindil seen bopp ànd saa mujj koy bi muy jël loi bi même Macky sax dañu ne ci li ñu waxtaanee dañ ne Macky Sall dañ koy épargner loolu parce que en tant que chef de l'État mais parlement bi nga xam ne moo fi nekkal askan wi ñoom ñoo koy voté kon Macky Sall mënoon na ci génn fu mu taxaw ne leen parlementaires yi ñoo ko def. Mm-hmm. bu buñ ko voté noonu tey lii may wax ni coow. problème mu ensemble la. Mhm. bu mu war a régler parce que ñun soxlawuñu projet de loi proposition de loi la comme ay député yu koy def mais it foofu it ma waxaat ko ànd sàmm ko ci biir wax ji bi ñu demee ba delloo woon ñu ko mooy ci bu njëkk bi wax nañ ne mhm. nañ waxtaanaan. Mhm. parce que est-ce que du ñu jël daan yi diisal ko bañ a wàccati léegi criminalisation parce que dañu jàpp ne même comme tey li am ci viol ak vol de bétail daan yi diis na. comme criminaliser te taxul mu kii. Mm. tey au lieu de dix ans yi muy dem comme bu dee crime mais mu dem ba sept ans wala de cinq ans à sept ans wala de deux ans à sept ans. Mm. mais fuñ ko kii ñu jël mbir mi tey ci code de la presse bi ni ñu def ba dugal ci article dix huit bi. Mm. tere leen yéen journaliste ngeen bañ cee wax loolu day tëb mais mu dugg léegi ci code bi parce que bi ñuy teg ngóor jigéen l'année quatre vingt dix avant quatre vingt dix fekkagul woon àdduna bi ci boppam jàppe ko muy jàngoro. Mm-hmm. jàppe ko jàppe ko muy noonu dañ ko jàppe woon jàngoro. maanaam comme ni ak ndof mel ak mm-hmm. feebar ngas xuréen ñàmbataan ni meloon noonu la ko àdduna bi yëpp jàppe woon <laughs> il a fallu que 90 lañ leen di doog a reconnaître <laughs> ba 2001 waaw ba 2001 lañ leen di doog a reconnaître <laughs> comme ñuy takkante fële ci Hollande mm-hmm. biñ demee ba 2008 ñu koy doog a nangu sakkante ci France. Mm-hmm. ñoom ñuy doog a ñëw di ko dugal Afrique mooy li son ko tuddu tuddee wax euh, euh, Malanso. Mm-hmm. ne ko ba muy nekk fi lu fi am la parce que moo tax tur bi am fi. Mm-hmm. amuñ ci woon problème te lu ñu toloore la. mooy comme li wax ak yooyu jusqu'à ngeen ñu koy imposer. loolu la baatam bi li muy wax noonu sens bi foofu la jëm mhm. jusqu'à ngeen ñu koy imposer parce que problème mooy ñun ñëpp gisoon nañ ci suñu xew yi mais bi ñu jógee tey takkante Hollande takkante France bëgg nit ñuy takkante mu yegg si foofu mhm. ci la nit ñi commencé di jóg fu ñu leen fekk duma leen wala bu ñu leen suulee ñu leen mhm. loolu mooy li nga xam ne moo am léegi ñun bi ñuy waxtaan loolu ci entre sàmm jikko ak yooyu loolu bokk na ci ay juristes yoo xam ne loolu la ñu xelal ci comme ci la ñu dem ba xam nga Ousmane moom yàllaa dogal ko vaar signé par réserve parce que dafa ne amoon na ci ñenn ci waa Indossam dañu jàpp ne lu ñu bëgg dañ la koy imposer te loolu ña fa nekk tey comme mën naa la jox ku mel ni Karim Gueye wala ñeneen ak ñeneen ñoom li ñuy doxee lañ bëgg dox ñëpp doxee ko. Mm-hmm. lépp nag fi na ma fekk nag wax dëgg yàlla am bañ koy signé ji. ba ñuy dem di ko yóbbu ensemble te oto yi ñu am Bamba Dieye taxaw mm-hmm. député Aline soire taxaw ak keneen ak keneen ñu ne nañ dugal Babacar Mbow fii dugal fii daal ne Karim Gueye ñu dugal la fii Karim dafa njëkk a bàyyi bàyyi na mu dugg ak keneen ak keneen mm-hmm. Babacar ne ko diw mu ne ah ne ko est-ce que du ngeen kii ngeen doon kenn avant avant bu Babacar di daaneel fel na gémmiñu Babacar ba naan ko xamoo sa bopp commencé wax waxi réewande mm-hmm. man maa woo Abrahima boobu ne ko kii dafa réew li ko Babacar di wax terewu ko daf ko wax ne ko ñoom nañu jël au lieu nañu nekk ñett nañ doon benn xale ci mm-hmm. biir pourtant man jeune laa comme moom mënoon naa dem ne moom dem dama fay dem mm-hmm. mais damaa taxaw ànd ak discipline toog foofu comme ni Babacar kii imam Alioune Badara Ndao tooge xaar ñooñu ba ñu yegee ensemble dugguñu ak xamadeem moo tax dugguñu parce que tamit gis nga dëgg boo xasee jot dañ ko war a wax hmm. ci ni mu demee lii waxoon nañ ko ne nañu xool fexe ba nga xam ne ñi leen ciy jàppale muy seen ndey seen bàjjan yi hmm. mooy képp koo xam ne tey parce que allié nga mooy nga sañ a taxaw ci presse teg sa kaas boo xam ne dafay fésal góor jigéen hmm. wala nga taxaw fésal nangam wala ngay wax di leen ci xabtal wala téléfilm bu génn mu am daray góor jigéen wala pu ciy propagande ñu xam ne góor jigéen bi lii buñ ko daanee sept ans lañ koy tëj ki leen ciy woowal di leen propagandal ci presse presse soo ko waxee wala nga def benn xew boo xam ne wala nga def ko ci këyit ñu ne cinq euh, cinq ans lañ lay tëj wala deux ans loolu la ñu waxoon ne nañu identifier daan yi dëgg nag man dëgg may rey fu ma nekk moo may rey lii la ñu waxante woon maa maa ngi tuub soxna si.